comme ne ko ñëpp yëgee rek di waat ñëpp di baaluwaat ñëpp ak di baal ñëpp comme ne ñëpp yëgee rek métit mhm. la tiis la naqar la ndax euh, xajoon na fi mais nag euh, comme lii yàlla lii la yàlla bëgg mhm. dañ ko koy sante ñun ñëpp suñu xel dal mhm. relation nga am ak moom moom soxna moom waaw deret deret deret mbokk deret bi daw si man mooy daw ci moom mu nekk ku baax ku mu ku mhm. yaru ah donc am diine ñu estimer ko trop mhm. ah defe naa tey moom wax ji du mën a bari quoi mais waaw ñu ngi koy ñaanal di sàkku ñaan ci ñëpp di gën a dénkaat ñëpp rek mhm. di waxaat ak nit ñëpp war rafetal lépp àdduna yëpp woyu ñun ñëpp fii la ñuy mujj. Mhm. waaw nañu rafetal nañ rafetal lépp waaw. naka nga yëgee euh, nouvelle nan la nga ko annoncé. en tout cas tiis na daal xam nga ñu ngi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di di di ko ñaanal di sàkku ñaan ci ñëpp. sa frère Waly yéen a bokk euh, mag ji moom ma nga nekk Paris yëpp ko euh, yéen kàddu nga koy jox pour defal ko. dañ koy massaw rek ak famille bi yëpp ak famille bi yëpp ah. ñëpp ñëpp tey ñëpp am tiisa ah. Sénégal yëpp parce que ñëpp ko estimé woon donc euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñëpp ñu ngi massawu ñëpp di baalu ñëpp ax ah. di baal ñëpp ax tey moom la mën na doon man suba mën na doon keneen ñu ngi baalu ñëpp di baal ñëpp ax kontaan nañu jaajëf ay at ñaari atam matagul tey gis nga euh, tiis bi dalax ci kaw lan nga koy dégg. waaw ja ah, suñu yaay jooju moom dafa koy xam li ñu fekk na mu mu nekk ci moom. <laughs> man ci nekk Diouf laay wax yàlla dafa dogal dañu dañu xaw a miinante trop eh, xam lu bari ci moom ci travers ak borom këram sama papa Kiné dama koy wax massa rek parce que Kiné dafa ànd ak coon ci ci carrière bu metti ko c'est mhm. normal moom faw mu dund lu métti. parce que yàlla moo tracé yoonam noonu ko nekk ak coon sekk rek ci ay affaire la ci diggante moom. moo tax Kiné yu mel nii dina ko dina ko dina ko mise parce que. Euh, coono àdduna bu ne yàlla boole na ko coon sekk ñoom ñaar ñu ànd ko. Mhm. ba tey ñu am moo tax njabootu coon Euh, suñu borom daal moo xam li muy tracé moo xam ndogalam. mais Kiné jàmbar la te yàlla moo boole na ko borom kër doo xam ne jàmbaar la fi ñu gën a métti te sóoroon na lii yëpp ndax boo xoolee ñu ne la moom yi jëndoon na bàmmeelam ñeenti at ci ginnaaw juróom bu jigéen jënd na bàmmeelam Thione Ballago Seck mi ngi fii tëdd kon ñoom sóor na loolu ñu koy masawu nag waaw man nag yàlla dafa dogal ci nit dina dina jaaxal bari nag ku ma ko waxee bi Thione Seck génne àdduna ma woon la toog ak wax ak Thione ba pare téléphone noonu mu waxee noonu noonu noonu la a gis lan a marqué. ci ñu la euh, ginnaaw biñ la jaalee li ñu bokk ñu fekk la tey ci dëju ki nga xamante ne moom moo di soxna Momy sekk ginnaaw biñ la jaalee ñu ngi lay nuyu. Ah, tey xol bi neexul gis nañu tristesse bu mag bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko sa kanam waaye dañ lay ñaan rek nga bësante ak xol bi ndax itam du ñàkk témoignage bi nga xam ne soxla na ko jamono ji yow it di nga ko mën a wax. sant rek sant rek. xanaa yàlla bu ko cat jiitu yàlla na rëccu lu mu doon def àdduna yàlla na alaaxira doon naflaayam na ko ñëpp ñaanal. nañu tey témoignage bi yëpp benn la mu mel ni rek ku nekk loolu ngay ñaan nga dëddu ñu defal la témoignage euh, bu rafet rafet bi nga xamante ni ku nekk itam loolu lay ñaan aloo lan nga ma mën a wax ci sa diggante ak moom. non man mënuma kii wax dëgg yàlla awma kii dara daal xol bi neexul daal. nañ ne ci kuréel yi rek ñaan li ci des yàlla yàlla. jéggal ko te yërëm ko te bàyyi fi ay waajuram ak ki borom këram ak ñëppam yàlla may leen xolu muñ jaale ko ak ngay wax sa presse loolu laay wax côté boobu laa wax. daf may jaale man moom sekkuñu jaale ndax ñoo bokk naqar dëgg yàlla sama mag la sama papa ñoo bokk naqar ndax suñu mag moo gaañ suñu yaay. piis mm-hmm. bi conseil la ci képp ku nekk ci réew mi ñu xam ne def lu baax ak waxu rafet bi moo am solo àddina am solo. waaw def lu baax rek am solo sant yàlla rek. nit ko baax la moom boo gisee tey li fi nekk ci ay doomu nga xam ne nit ku baax la nit ku yàlla baaxal la. jërëjëf.